Merci, Président. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre du Travail en charge des institutions, Mesdames, Messieurs les collaborateurs du ministre, je vous salue. Monsieur le ministre, dama lay gërëm di la sant au nom de Guédiawaye que je représente parce que Guédiawaye sunu ndox nii la daan xonqe balaa ñu doon sangu dañuy taaj si yoon ndox ba mu teey ba mu wàcc suuf ñu xent ko pour sangu kon kenn waxeesul naan tey jii ndox ma dafa weex tàll dañuy naan dañuy sangu duñ ko soxla def ci sio muy teey kon ñu ngi lay gërëm di la sant ci loolu euh, dama wax ne problème bi ñu am rek mooy faja gent ba un gent ba deux gent ba trois ñu 24 heures sur vingt 24 du ñu am ndox ñuy sant nag wax dëgg yàlla euh, waa Sen'Eau ndax euh, sone sax laay wax ndax kii ñëw foofu di Issa Diouf tout le temps mooy fexe ñu am ndox chaque fois dañ koy woo ñu bëgg nag léegi bëggatuñ sax téléphone dañu bëgg soo leen xëyee rek ngeen yónnee côté boobu citerne ndox parce que ñoom ils en ont besoin te xam ngeen ne population yi lu ñu ñàkk rek dañ naan maire bi duñu ñu xalaat keneen maire bi rek la ñuy wax ndax maire bi moo leen jege kon loolu ngeen dimbali ñu ci euh, di gërëm sa personnel yëpp bu ñu gërëmee Laasana gërëm nañu ñi ko topp ñëpp ñi ko topp ñëpp ndax duñ joti ci moom bennoon yoon laa ko téléphone mu boole ma ak ay nit boobu ba léegi ñooñu laay woo ñooy faj suñu soxla di gërëm sama maccudo bi ngay àndal muy laay seen sama jaam la maa koy gërëm di ko nuyu wax dëgg yàlla moom i tamit bu ma nuyoo Charles fay dama koy nuyu à travers Issa Diouf ndax kenn ku ne ki la ki la jiite dañ koy gërëm ndax ci liggéey bi nga def moo tax bu ñu la gërëmee gërëm nañu président Macky Sall ndax moo la fi teg li wóor nag mooy nit ku baax nga nit ku am compétence nga man bu ma ko waxee dama cee xam dara ministère de l'enseignement supérieur dañ la jëkk a jox dañ daan ñëw di assister ba nga daan jubale waa CNJ ba ñu bëggee waa CNJ ba ñu bëggee grève da ñu boole woon ca commission ba doon euh, def médiation ñu yóbbul éducation nationale jàngalekat laa xam naa la nga fa def xam naa la fa nekkoon ak la nga fa def ñu indi la tey bu fekkoon ne dafa ay résultat wala def nekkoo fa koo xam ne da ngay liggéey wala am compétence kon président du la jox euh, euh, commission euh, ministère bi mu la jox ndax ministère bi kat moo yore suñu bakkan ñun ñëpp ku amul ndox doo doo dund kon bu la ko joxee ça veut dire que dafa am yaakaar ci te yaakaar boobu da nga ko mérité ñi fiy wax nag ñi fiy wax nag duma ci tontu ndax dañu nekkoon PS ñu daanu 2000 ñu ne Ablaye Wade du leen jiite gàddaayu dem ba ñu demee nag ñu ma dem ci Ablaye Wade kon tey lu ñu la wax rek bu mu a naqari euh, di wax ne damay indi dama wax ne inondation ñun géejawaay metti woon na torop man commune ba ma yore bu tawaan sama ginnaaw maire yi day taa ba def vert de tey jii defe naa ne Camara mun na ma seede boobu temps Dieng moo yore SONES euh, moo yore ONAS da daan vert da daan taa bay def vert de waaye tey jii bu tawee quelques minutes bu taw bi sebetee mu dem te loolu c'est valable pour tout Guédiawaye bu tawaan inondation yi dañ daan yóbbu population yi ci école ya bu école yi tëju ñuy am problème génnee population yi delloo leen seen kër pour ubbi école yi loolu yëpp amatul Guédiawaye kon jaaraama ñu ngi leen di gërëm di leen sax am na quelques points yu des waaye xam nañ ne dina sotti même ndox mi Euh, nee nañu am na loo xam ne ñu ngi koy def foofu ca château d'eau ba yokk ko pour que robinet dootul tëjati le temps KMS 3 pare kon dañu lay gërëm di la sant ci sa liggéey bi di wax ne euh, sama càmmeñ Vilane tey ministère de la santé dafay dem Kaffrine moo tax nekku fi mais nee na bu ma ñëwee naa la nuyu gërëm la sant la waaye mu ngi lay fàttali Kaffrine ndax inondation Kaffrine metti na te moom mooy maire ba kon dénk na la ko nga jàppale ko si di wax ne monsieur ministre am naa benn doléance muy branchement sociaux yi ci o use yi parce que population yi bu ñu ko amul ci mbedd mi lañ koy tuur ba ci ñi janox sama mairie dañ koy def exprès ñëw ba buntu mairie ba tuur ko fa su ma génneel ñu ne ma defal ñu branchement kon bëgg nañu ngeen dimbaleen ci branchement sociaux yi ndax branchement yi dafa seerte population yi nekkuñu en mesure euh, fay ko donc ngeen jàppale leen ci def ay branchement sociaux yu leen di permettre vraiment ñuy mën a tuur seen usé yi ñu bañ ko defati ci tali bi monsieur le ministre ñu ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla ca kanam nit ku am ngor nga ndax ba segor daa ba Abdou ba Abdou Diouf daanoo daw da nga toog xeex ak ñun ba tey ji nga toog fi nga toog merci beaucoup. Monsieur le ministre de l'eau et de l'assainissement monsieur le ministre des du travail du dialogue social et des relations avec les institutions chers collaborateur des ministres ma nuyu ci sa secretaire général ak sa directeur de cabinet ak le directeur général du budget nuyu. sama jëkkër Ablaye sen di Forum de l'eau monsieur Charles Fall de la SONES monsieur Lansana Gagny Sakho de l'ONAS monsieur Alioune Diop de le directeur de l'office des lacs et cours d'eau et rendre hommage à madame la directrice de Sen'Eau monsieur le ministre dama lay renouveler sama félicitation yi ma la adressé woon ci commission pour confiance bi la chef de l'État renouvelé yaakaar naa ne soo jógee ci secteur bu difficile muy éducation nga ñëwaat ci beneen secteur bu difficile président li ko wax léegi nee nañ du jox dénk ko koo xam ne wóoluwu ko bon yaakaar naa ne soo amul compétence yi ak yaakaar président du la indi ci secteur bu difficile bi monsieur le ministre ma lay ñaan pour nga transmettre ñu suñu félic suñu remerciement à son excellence le président de la république les populations du département de Nioro waxoon naa ko dama koy waxaat ndax ku ku gërëmul xarab te tey ñun dañoo toll ci gërëm le ravinement à Nioro aujourd'hui dans le passé Aujourd'hui, il y a, on a réalisé des ouvrages de grande envergure en termes de réseau d'assainissement et également de voirie au niveau de la commune de Nioro tey dañuy tëdd nelaw suy taw duñu xalaat dara bon loolu da ñu koy euh, transmettre président de la République monsieur le ministre damay jëlaat parole pour remercier la parce que réponse yi ñu jox ci rapport bi réponse yu leer la dégg nañ ko te gis li nga wax lu leer la ay yaakaar a ngi ci yoo xam ne ku ci sukkandiku may lu ab diir yaakaar naa ne fa nga jëm xam nañ ko ndax plan décennal de lutte contre les les inondations président de la république li mu ci wax dégg nañ ko ñu ñu demoon sur le terrain mission d'information parlementaire li ñu def li ngeen def gis nañ ko te yaakaar nañ ni tey recommandation yi ñu ci def président jox na leen instruction pour ngeen appliquer ko te dañ leen di may tuuti ba ci kanam monsieur le ministre damay ñëw ci département Nioro le département de Nioro yaa ma ko gën a xam il est transper traversé par le Baobolon le Marigot on a besoin vraiment que ce Baobolong soit drainé. Que ce, au niveau de ce Baobolong, qu'on nous érige un barrage anti-sel. Au niveau du département, les gens ne font la culture que pendant les trois mois de l'hivernage. Et avec ce barrage, avec barrage on pourrait faire des, des, des, des activités agricoles durant toute l'année et ça peut appuyer les populations. Monsieur le ministre, euh, dragage aussi, parce que dans l'autre sur l'autre côté, au niveau de Wakunguna, également, il y a le Tifa qui a envahi vraiment ce, ce, ce lac. Et je pense que si vous revisitez l'histoire, au niveau du, du, conseil présidentiel, du conseil des ministres décentralisé, je pense que le président de la République avait validé ce, ce projet. Vraiment, je fais un plaidoyer fort pour cela. Je vais vous dire que l'assainissement, le président Abdoulaye Sek, nee na ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen remercier le directeur de l'OFOR ki nga xam ni tey jàpp na ci assainissement Touba mais nee na mu leen di ñaan rek Touba su màggal gi di jege seeti bu leen di gas bu leen chantier yi na ngeen ko arrêté lool na ma pour ma yóbban mais nee na li ci des dina dina yónnee courrier Abdoulaye Wilane aussi je pense que message am jàllale nañ ko ah euh, monsieur le ministre ma dellu si nag ci euh, sama euh, naataango aussi Boussa Ngom nee nañ mu ngi lay gërëm di la sant moom ak Fatou seen di nuyu o passage euh, Diokh de Ofor ak Ablaye seen nee na Ablaye Sène dafay defar sëyam loolu loolu nga ma yónni may may joxe yóbbante sama collègue Abdoulaye wilaan Kaffrine ñun dañoo demoon bokkoon ci membre équipe bi demoon Kaffrine ñoo xam dañ demoon fekk loo xam ni dañ koy commencé engagé ko fa ci au niveau de l' cinq 5 en terme d' assainissement vraiment mu ne pour ngeen jàpp ci donc ma terminer ci assainissement monsieur le ministre assainissement au niveau national gis nañ effort yi ngeen ciy def gis nañ effort yi ci gouvernement di def ñu koy saluer nag ñun ñi nga xam ne dañoo wëroon Sénégal en cinq axes gis nañ li fa nekk gis nañ chantier yi gis nañ aussi li ngeen taxaw pour def ko ñuy ñaan rek à ce niveau comme ni ñu ko defee ci rapport bi que la coordination soit plus renforcée merci beaucoup le président